ami internetu AG Pro TV ñu ngi amaat contentement ak mbégte bu baax a baax di dajawaat yéen rek ci seen info du jours waaye nag képp rek koo xam ni abonné goo ci seen bile ñu lay wax nga daal daw abonné te activé rek li nga xam ni moom mooy cloche de notification bi ngir ngeen di mën di am suñu ay video à temps bu leen fàtte di like vidéo yi ak di ko commenter ndax lu ci ama am solo la gannaaw rek ba nga xamante si rek daal dinañu génn. Euh, ci li nga xam ne rek moom moo di weeru koor gi lee daal di jàll ak jàmm ci li nga xam ne rek moom mooy korite gi nit ñi nag dañuy daal rek daal di duggaat rek ca la nga xam ni moom mooy euh, procès bi dox ci diggante kii di Mame yi ñaa ak ki nga xamante ne rek moom moo di Ousmane Sonko di njiiteel partie boobu di euh, Pastef mu mel ne nag ñenn rek ci sénégalais yi dañu rek daal di xam la ni li nga xamante ne rek moom moo daal di am rek ci diggante Ousmane Sonko ak Mame yi Niang di procès diffamation boobu nga xamante si rek dañu ko renvoyé woon euh, ba le 8 mai bii ñu daal di dégmal nag ñenn ci nag ci ay sénégalais wala ñenn nag ci ay militants ak yu ni mel daal nañ xam ne rek. suñu rek daal di maytu li nga xamante si nag moom mooy procès boobu di am le 8 mai bi di ñëw rek coow nag nar na am ci li nga xam ni moom mooy ci diwaanu Sénégal su fekkente ne rek dañu rek bëgg a xañ ki nga xamante si ni moom moo di Ousmane sonk candidature am pour présidentielle 2024 yi dee di dikk coow mën na indi rek loolu rek mën na indi coow ci diwaanu Sénégal wërngël këpp waaye nag nar na indi nag jéye boo xam des nii rek fu nu ko natt rek mën na ko weesu ndax nag Eh, coow rek eh, du daal di yem rek eh, ci boppal borom. su dee njiitu réew mi di Macky Sall le président de la République di Sénégal moom nag daal dina xam na ni rek moom nag pare na rek pour toog ak képp koo xamante ni moom la mënti doon ci opposant bi ak ku mu mënti doon rek pour rek ñu daal di def ab waxtaan waaye nag ki nga xamante si nag moom moo di Ousmane Sonko daal dina fay daal di tontu rek daal di xam ne nag jàmm nag ñaar ñoo ko daal di mën a seq mu mel ne nag dafay daal di rek xaw a Euh, tey am xel ndax ay nit euh, su ñu nekkee nag bu problème amee rek war nañu mën a daal di toog euh, concerté wu daal di waxtaan trouver benn terrain d'entente def li ñu naan rek consensus ngir rek ñu mën a xam ci naka la ñuy daal di doxee ngir rek réew mi daal di mën a am jàmm ndax nag bu fekkente ni moom Macky Sall moom lee bëgg na rek nit ñi daal di toog. daal rek euh, waxtaan mu mel ni rek kon mën nañoo rek waxtaan jël dossier boobu lay bu di Ousmane Sonko daal di koy jël daal di koy tegandi ci suuf rek daal di koy bàyyi mu daal di sedd ngir jàmm rek daal di mën a am ci réew mi waaye nag ngir rek moom tamit. Ousmane Sonko moomulee mu daal di mën a dem ci élection présidentielle 2024 yi lee di dikk ndax nag loolu nag mooy li gën a rafet te yaakaar naa it su daal di amee rek mooy li nga xam ni moom mooy daal di gën a am solo te mooy indi jàmm ci li nga xamante ne rek moom mooy ci diwaanu Sénégal te it nag ñenn rek ci Sénégalais yi dañ koy rek daal di bëgg waaye nag dañ koy rek daal di rafetlu ndax nag mooy la nga xamante ni rek suñu ko defee jàmm mën na dellu siwaat ci li nga xamante ni moom mooy diwaanu Sénégal njaay giilee mu doon nag loo xamante ni lu xawa a tiis la waaye ndoo loo xamante ni rek lu jaaxal doomu aadama yi la ngir rek ci diggante kii di Mame Mbaye Niang moomulee ak ki nga xamante ni rek moom moo di Ousmane Sonko muy coow loo xam ne nag narul fay benn yoon. muy coow loo xamante ni kenn mënu ko fay rek kurul le président de la république du Sénégal di Macky Sall moom nag bu ci dogalee rek mën na rek daal di féete boor loolu mooy li gënoon a feste ci xibaar yi ñu jox leen dig daje beneen yoon incha